ñu ngi leen di sant ngir bëgg ñu def ay seere sëriñ Abbas Mbacke ñi nga xam ne mooy ñeenteelu xalifa bu gën daal yàlla def ci li gën di ko sant ci indi gi ñu ko indi woon di ko sant yi yóbbu ñu ko yóbbu waaw ñoo loolu bi di ko Seydina Abbas yoon bokk ci asalsul basara moom daaru bu tuddee asalsul basara ay doom fukk yooyu nga xam ne ñu fekkee bis ba ci danañ fekkaat ci ñàbbaas boobu ci la bokk ñàbbaas it doon nit baax nit ku doylu nit ku jaamu rek ab tànkam ci sariya doyloo li muy liggéeyee loolu mooy jikko yi sa ñàbbaas maandu it lépp lu yoonam nekkul yoonam lépp loo ko boolewut yoonam loo ko boole it mu wax la ci la gën def loolu ci la gën du la digal du la wax lii nar lay mukk ci àddina ko mu la wax rek lu mu la moo tax lu mu lay digal rek day mel ne boppam la koy digal moom ci boppam moom laa mos a dégg mu ne nit bu la digalee dangay seet li mu lay digal booba noo nga koso de muy jàng xam li mu lay digal bu ci amee benn intérêt nee na na nga xam ne bopp ma waaye boo ko seetee amu ci benn intérêt na nga xam ne sa bopp loolu ñu koy digal loolu lay nag doon doomi sëñ Ibra Faati jàmbure ku jàpp boppam waaw jubóog bokkam yëpp nag yu mu bokkam ñoom ñëpp la jubóog ko tam dañ ci mu daaw ba nga ko ci xaalis ba ci nun ñii di ay doomam xam ne ay magamal su ay magam noonu ñu noonu la meloon ak noonu kenn koo ci gis ku ne dangay ngay defe ne li la Abbas sédd yow rek la ko sédd fekk na noonu la commencé li li ma la wax ne nag nit ku doylu la euh, li muy tukki nga dem laajal ko dara ñi muy dem ci tukki ne bu xasee yëg ne ñëw na daal danaa bul laaj kenn dara bul dem ci kenn ne ko sëñ baa ngi yëg nañ ne maa ngi fi ku dikk baax na ku dikk nit baax na sos kenn yi duna kenn jox ma nanga wala nangam moo tax musu ko wax kenn musu ko wax kenn bi fas xewee musu ne kenn dama bëgg fas bi oto xewee musu ne kenn wutal ma oto lu ci ne mooy liggéeyal boppam ba defal ko bopp lu ko ci waay defal daal yaa seet xam ne lii war nga ko def sa digganteeg moom nga def ko waaye du loola am rek tegul kenn dara sonalul kenn ci bi mu nekkagul xalifa ak bi nekkee xalifa waaw nag yàlla wéeru ci yàlla di ab liggéeykat la dem ba kuppantu mu def fa ak def fa lépp di fa liggéey loolu loolu la nekkee woon ñi bii mu nekkee xalifa it jubluwul ci boppam dara la mu song mooy kër borom daaru gi ak dëkk borom daaru gi def fi le kër borom daaru ci ngeen liggéey bi mu fi def bi président di kii da ko ne man waxuma ci sama bopp dara waaye dëkk bi ak boroom dëkk bi laa bëgg nga taxawal ma président Macky Sall ma yi ma def ci kër yi yëpp danaa ko ci ci daaru si ma tàmbali kër googu ba fi mu ne ñu ngi koy raax fekk na moom def na ab étage ba noppi biir kër boroom daaru loolu lépp ak taalibe ba tax mu def ba ñu dajalee it dane ñu sas kenn yéen ñëpp yéenay dajaloo kenn ku ne li nga mën nga indi ñu dajale joxe moo fi jëkk joxe yit nag lii mu joxe ci euh, université bi waaw mi million ak juróom-ñett fukk ñu topp lanu woo dajaloo loolu loolu la ñu la mat ñu def ko ba mu mat ñu ko sëñ ñu tax moom la jëkkee la loolu nag taalibe ba tax ak fonk gi mu fonk borom daaru te xam ne borom daaru nu mu mel sëñ Tuubaa dañuy tagg Sidna Omar di ko tagg di ko tagg ba yàgg Sidna Abubakar ne leen Omar Omar Mohamed waaye borom daaru it yëkkati beeg dara ji lépp borom daaru borom daaru sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa am ay mbiram defal defee ko na mu ko neexee nag moo tax ñi nga xam ne ñoom Euh, xëy na noonu mu def borom daaru neexu loolu ñooy sonn rek waaye sëñ Tuubaa moom moo yor ay mbiram moo seet itam kenn ku ne lam lay sédd mu séddale ko cër yi nag bu ëppantee moom lu ci ki ñuy sédd kay séddale la waaw loolu la sëñ Abbas it foofu la nekk waaw jubóog magam yëpp soo ko fekkee kër sëñ moo bi da nga naa fii rek la nekk sëñ Modou yi bi muy nekk ak Abbas musta reer mukk te wóoyu wuñ ko lu taw taw dañ koy wooy bi mu nekk sëñ Abdou Diop bi sëñ Abdou Khoudoss nekk xaritama woon wala réema woon dafa yàgg bëgg liggéeyi nag ndax daf nawete nag fi Cameroun ay ati at yoo xam ne yi Cameroun lay nawete di ko bay noonu it la juboo woon ak sëñ Fadilou lañ fallu noonu la juboo woon moom dafa bëgg Abbas rek man yónni na ma ci moom ñetti yoon yónni na ci moom ñetti yoon euh, sëñ bi sax nasoon na fab doomi boppam jox ko taalibe gi Abbas rek moo àgg foo xam ne fii ne rek ma ko ndax dama nekk ci àll bi di liggéey te bugguma fa doomi àll bi waaw ma sañoon damay nekk ba jekk rek la ca bëgg a def ma def ko lii rek moo tax na it nag ñi mu yor li ci lépp waa sëñ Fall dama ko bëggoon a jox dama ko joxee ci àll ba di liggéey sa doom ko yóbbu fu muy tumuraanke sëñ bi fab mètre sec jox ko moo jur gone yu mag yi mètre sec moomu la nekk ginnaaw bi la sëñ bi fab doomi Ousmane Ndiaye jox ko muy El Hadj Hadj Ndiaye waaw xam nga loolu it ba tey génnul la def kon sëñ bi la mu ne soroon ci moom am na abasit ak taar yi mayu ko woon Muntaxa ah, mu fab doomi sëñ Fallu ko moo waaye sëñ lu mbooloo mi bari bari bu xasee ak bu ak bu nuyoo wax kenn danaa may leen kilifa dawaa ji may leen loolu la nekk xam naa daal kenn du ne lëjal na ma ci sama kër eh, kenn du ne lëjal na ma ci laaj ma kenn du ne lëjal na ma ci liggéey ma lu ko waay defal yaa setti sa teeg bakkan ba defal lu ko waay jox yaay setti sa teeg bakkan ba mën ko jox waaye sasul kenn bundu xataalul kenn laajul kenn dara waaw waaw lu li mu amoon doy dafa doylu li mu amoon koo doy sëkk moom jàpp na sax li mu amoon ëpp di nit ku ñeme ay fare nag fonk nag njabootam ñeme ay frais fonk na taalibe yi na ñëpp ñu daal mooy moom xam ci yàgg na moom nekk nañ koso nekk daal te booba du xalifa booba lii ko nuyu nuyoogu nii mu mel nag bi ko lii nuyoo it ni la meloon bi mu ko nuyu soppiwu ci benn xalifa gi sotti soppiwu ci moom sëriñ Basiru mi ko fi wutu it di rakkam di xaritam moo ko wut tey ci euh, barab bii ci xilaafa gi góor daaru mat na ko sëkk enfis la alim la abid la yooyu moom mu ngi ci Basiru kon euh, boo xasee nekk alim moom dara jërut la wax lenn lu ne xam nga fa fa fa nga koy jaar lenn lu ne xam nga lañ koy defee lenn lu ne xam nga lañ koy doxee sëñ Basiru moomu itam noonu la juboo woon ak magam yi fi nekk yëpp sëñ Mudaa Balla sëñ Mudaa bi ba ci sëñ Abdou Kudoos ba ci Maam Moodan ba ci sëñ am ba ci sëñ noonu la juboo woon ñoom topp leen doon nit ku nangoo toppe nag dafa topp ay magam moom kenn ku ci nekk bu la gisee dalay def na sëñ Ibra Fall la bas mel kenn ku ne ne maam Thierno lay day boo bu toogee yow day defee ne borom dër lu toog waaw loolu la leen jàppee woon itam ay sëriñ jàppee wu leen noonu ay doomi bàyyi ñoom ñëpp ay sëriñ la leen jàppe woon ndax bas li xam-xam bi bari bari bari bari bari taalibe gi ko gën a ñor ci lépp waaw taalibe gi nag da ko da ko yàqul ci sariyaam dara dafa fab tànkam teg ko ci sariya waaw soog a fab taalibe gi teg ci yaakaar nag sëriñ bi rek wala sëñ Abdou lii may def lépp yaakaaruma ci dara sëñ Touba rek laa yaakaar lii nag sama boroom dafa moo ko sant ma di ko defaa yaakaaru ci lan sama yaakaar daal mooy sëriñ Touba foofee nag fa la bas rek waaw nit ku baax la nit ku doylu la nit ku gore la nit ku nangoon toppe la moo tax it fas nañ ko yéenee topp na mu topp woon magam yi lu ko raw lan bëgg a lan ko bëgg a topp sax am ndax lañ la nit ku ne la nga leble rek moom lañ lay fay waaw bu ko toppoon ci magam yooyu kenn ku toog ku ne sëñ bas topp na ci sa gannaaw sooy lëggeelu soo ko lëggeeloo mu lëggeelu sooy laaj boo boo laajee mu jot bu jekkee ba mu yàgg dana dikk yow mu yógu yow am na ci ñoo xam sax dafa yendu a dikk ci yow yendoo yow ba jant bi sotti woowoo ko loolu lépp di la won ne la rek sama kër kilifa la ñëw laa ñëw sama kër ki kër sëriñ laa yem loolu la daan def ak sëñ am satu di ko def ak sëñ Ousmane di ko def ak sëñ Abdou Khoudoss di ko def ak sëñ Modou Abdal kon noonu noonu mooy ji bas ah, lépp lu lépp loo xam ne nag sari am na ko bas moom la lépp lu am tere bas moom ku ca jaar it yaa ca jaar waaye moom jaarloo wu la ca te du ngeen juboo lépp loo xam ne daal lislaam da koo tere ah loola moom parce que loola la ànd waaw tere googee ca la ànd te ku koy defit doo jubóog moom te santuloo ko doo am ngërëm ci moom itam waaw moom li mu xam daal jaamu yàlla ak liggéey yi ak tere sans borom yi mu mu mu daw ko noonu mu ko dawee baraw nag la bëgg moom ñëpp dawee ko moom lay waxtaane mooy waxtaanam mooy mooy léppam moom itam moo ngi fas yéene topp ci gannaaw fas yéene nag déglu digalam digalul bas nag mooy li borom tere ngeen bàyyi ko lim digle nu di ko def te fonk taali bi lii rek mooy digalul basiru loolu it ci la teg tànkam nag ku ci ànd ak moom ci la teg tànkam ku jàdd it yaa jàdd waaye moom jàdd ñaan yàlla ñël ko yan bi waaw mu woyof ci boppam mu liggéeyal boroom daaru li mu ko bëgg a liggéeyal lépp te mu fekk ko te tal ko te bañ a ànd benn nax nax di ñaan it yàlla ku sa ci boppam woyofaral ko lépp lépp lu mu song ngir dëkk bi wala mu song ko ngir yoon wi yàlla na ko ci yàlla ak di ñaan it nag sa borom mbas mi nga xam ne moo nekk ci réew mi yàlla na ko yàlla mi ko fi indi yàlla na ko fi jële barkeb Serigne Touba ñuy ñaan ci barkeb Serigne Touba mbas mi jóge fii ndax mbas mi kat amoon na daaru musti yi te bi mu fi amee borom daaru dafa bi tubaab bi dikkee dañ ko ne dañuy lëkk dëkk bi waaw mu ne leen jubóo na ma ak yéen lu dul téere Serigne Touba yi daal jubóo naa ngeen lakk téere yi rek la génne ñu lakk dëkk bépp moom am fukki fan ak juróom ñu soog a ñëw sancaat dëkk bi mbas mi soog a jeex kon nag lii nga xam ne gaa ñaa ngi koy santaane sumu bokki wolof yii booba gouvernement français fi ne nañ masque wu nañu wattu nañ fab sel bi te wattandiku jegeyaayu bi ak xew yi loolu moo gën a yomb la ko dëkk bépp lañ taaloon mu dëkk am am fukki fan ak juróom ñu soog a dikk sa jàdd kon nag loolu it loolu lañ cee taxaw bu baax waaye noo ngi ñaan nag daal borom jeexal ko ci nag mu jeex tàkk ba kenn ku ne dellu fa nga nekkoon moom mi ko fi indi woon moo ko fi mën a jële yàlla na ko fi jële ci jàmm